jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox a baax di leen wax ne ñoo mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel dem ci mbër yi su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporter waaye bu mu nee mbokk yi xel yi dem ci ñi nga xamante ni nii ñooy dugg ci digg géew waaye tey nag dama fee dalal koo xamante ni nii ah, dalaloon naa ko fii muy làmbaloog su mu nee làmbaloog nag xel yi dem ci combat Balla Gaye Bombardier bi mu amee ci suba ga bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ci njëkk a joxe seen xalaat ñoo ci njëkk a joxe niñ ko gisee wala boog ni ñu seetaanee làmb ji bi bi loolu amee nag ah, coow lu bàyyi woon na ñëpp nee nañu làmbaloog la mu wax mooy dëgg la mu ko gisee noonu la ko waxee te mu nekk koo xamante ni ni géej waaye la dëkk mënoon na ne Balla Gaye laa faral damay nëbb ay faayam waaye faral ki teewul nga wax ko dëgg ndax boo ko ko waxee dina ci jàngee wala mu jëlee ci njariñ dama koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a dugg ci biir waxtaan wi làmbaloog nuyu naa la. waaw salaamaaleykum gaynde ñu ngi lay fay di la ziare di ziare ëtt bi di ñaanal Sénégal am jàmm. waaw di ñaanal Sénégal gépp am jàmm. di ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi doon seetaan vie bi rek di si am plaisir rek maa la gën a kontaan si affaire yi. waxewu ma pour pour nit ñi dama waxe li nga nekkoon sa tribune bi rek moom laa génne noonu gars yi apprécier parce que dëgg daal du bi noppu mhm. maa ngi koy doog a xam. gis nga réew mi yëpp bu fi dëgg jóge woon ñun dañ fiy jóge mais am na yenn dëgg yoo xamante ne soo ko waxee day touché ñu bëri moo tax ma ñëw sa a ñëwaat si yow parce que nee naa la yow mi wane làmb mhm. yow yaay ndaanaan parce que làmb dafa xeebu quoi bu doxee doo ko foogee fi li mu yor mais li ma lay wax rek xaalis du suukar de mhm. mais mun na jënd suukar man amaana am ma xaalis de mais mun naa wax nit ñi dégg xam ne lii may wax mun na ne looloo ma indi namu naa la ziar la na mu naa la ziar la maa la rew foofu mais keroog euh, dañoo taxaw man ak yow ñu waxtaan ci diw bu gàtt mais la nga wax ci làmb yëpp ñëpp dañ koo rafetlu ñëpp gis ne euh, kàddu yu am solo la ñëpp gis ne li nga wax looloo nekk ci làmb ji lan nga inspiré woo ak lan moo tax nga dëkk géejuwaay mënoon mën faral Balla Gaye ba noppi mënoon nëbb ay défaut am wax ay qualité am mais nga jaar ci digg bi ñëpp apprécier loolu xam nga xam nga Sénégal dañuy digle sangaay ba pare te duñ sangu parfois. Mhm. parce que bu buñ nee làmb nañ fi jëlee violence rek. kon nangu defet day day tax violence jeex. Mhm. ndax tey jii man su ma bañee defet bi di xeex. wala may wax loo xamante ni ki victoire bi ki moom victoire bi du ko neex. Mhm. kon du dugg si bopp gars yi quoi. dëgg la mais tamit Bombardier dama xalaat ni moom tamit sportive la quoi bu nekkoon beneen réew sax dañ ko war a encourager mu ñibbi. waxuma laa nag mu dëkk Sénégal. di daan di continuer di daan di continuer loolu daf ma neex. Mm-hmm. parce que bu ko neexoon dafay ñibbi n'est-ce pas. Mm-hmm. amaana bu daanoon Bombardier comme li ma ko waxee woon mun na dem ñu jox Bombardier defet te fekk Bombardier day rakraame ne day sone sax kenn du ko sentir. Mm-hmm. parce que baala li mu indi lañu xool rek mais xooluñu li Bombardier indi. Bombardier indiwul nit waaye indi na ngor. te laamu ngor la. ñun nag du ñu gën a gore Balla daa fàtte ne ñun ay ngor la yar. ay ngor moo koy supporté. kon bu ñu daanee dañuy nangu Balla def nañu jël bu ne. wax na nit une wax nit deux secondes te bi mu daanee nit ñoo ñu ngi dox dañ ko doon ndamoo. Mhm. kon ñun tamit buñ ñu daanee si ay erreur dañoo war a nangu ne erreur la waaye jël la bu ko defee moom it mu xaw a giif victoire bi mën a neex làmb ji jëm kanam loolu rek lañ ko waxee. Mhm. Euh, keroog ñu gis euh, seen dernier face to face ci diggante Balla Gaye ak Bombardier euh, ñu gis moo ngi nuyu suñ suñ papa père Bécaye keroog mu laaj Balla Gaye ne ko bi làmb ji jeexee dañoo gis kenn koo xamante ni dafa dëkk géej waaye. ku ñuy wax làmbaloog mais mu gis analyse yi mu joxe mais analyse yi xool nañ ba xool analyse dëgg la mais bala nee na ñi koy wax en général dëkkuñu géejuwaay surtout ki nga xamante ni moo sol costume bi dëkkuñu géejuwaay Pikine nañ ko defee te man maa la interview yaakaar naa ñoo ngi ko defee bunt estat Amadou Barry n'est-ce waaw lu amul seede baaxul mhm. parce que yàlla defoon na lépp yow la Mm-hmm. yow yaa ma invité woon buntu Ersat Amadou Bari ñu tefe foofu. ci diggante signature ki nga ah. xamante ni mooy Ndiaga Dollé. ak ñaari yaa mouvement doole làmb. waaw ñun ñoo ko ñun ñoo ko tegoon maa ngi si biir mouvement bi. Mm-hmm. ay sérif waaw di profité di nuyu Paate. Mm-hmm. ay Iba grand Gora père ñëpp tout parce que ñun nooñu ñoo yor Géejawaay. dirigeant bu si ne. du nekk Géejawaay rek ñoo bokk ànd. bokk ban écurie nga nekk. nga yore Papa Kan Papa Kan maa yor ñoom Marley. ñoom Marley ñoom Papa Thiam ay Gabaar ay Papa Thiam. na bàyyi xel si ñooñu ku leen yor mu ne dëkkul géejawaay na si bàyyi xel. Mhm. ñun géejawaay lañ juddoo. te defe naa bu ñu magul baala baala maguñu de. Mhm. mais gétt gi dañ si bokk duñ ko yàq. parce que làmb kenn du ko yàq man bu ma xamoon lu ñaaw si Balla Gaye du ma ko wax. Mhm. parce que après sama xas la fa ma dëkk. moom amaana xamul sax mais damaa cate si ginnaaw rek mais musumaa dem sans Balla Gaye musul dem fenn combat te seraani wu ma ko man. te xoolal fi bi mu ñëwee da ne man dëkkuma mais loolu duñ si close Balla Gaye nag la daloon gi la mu defoon Gris Bordeaux mi ngi koy bëgg a dal. muy lan. xam nga Gris do Balla téye na ko fi rëtëf tëtëfee mu ne Gris Gris na ko yow doo koos combat. Mhm. te combat balaa neex ñu koos ko tëtëf tëtëf. te yow soo def tëtëf tëtëf. keroog ba ko baala koree ba mu ko dóoree épercule njox ma ko njëkk a suy moom Gris moo mañ romb. Mhm. mais Gris bañ demee këram di ko seeti journaliste di ko seeti da leen a jaawale. Mhm. mais Balla tey ji biñ ko daanee contre Bombardier jaawale daa juum te nga dëkk bi géej daa juum ku jël na hypercule de ma xam ko. <laughs> jël na hypercule mais moment bi ngay toog dégg Balla Gaye mu wax loolu te nga doon joxe ay conseil rek naka nga gisee loolu. ak Balla xam na ne su waxee si lës làmb xam naa ko wala rafetlu naa ko bës bi day bari la wala. mais moom su waxalee yàlla yow rek xam nga ne Amadou Bari lañ ko doon defee. Mm-hmm. kon yàlla defoon bu doon erreur yow mën nga maa génne. Mm-hmm. tey ji man waa Géejawaay xam nañ ba xam Géejawaay laa dëkk wala dëkkuma Géejawaay. Mhm. bu dee ku dëkkul Géejawaay yàlla na dee kon du ma dee kon loolu jëru tontu dama si gën a kontaan. Balla lu mu ma def saf na ma lu mu ma wax saf na ma mais moom it na xam ne li ma koy wax lu leer la. Mhm. mbër njëkk si taxul nga jariñu si. Mhm. mais mbër ak fas ak jeega yem ku leen lu mën a xam fu ñuy bañee. mbër fas jeeg. ñoo yem ku leen juddulu mën a xam fu ñuy bañee booy bi da koy juddulu si biir kër gi mu nekk xale bu ndaw. bu siisee dangay xam ne daa siis. Mm-hmm. da ngay xam ne booy bii dafa siis. chaque bool day jooy. jeeg bi mooy jeeg bi mooy xale bi fas bi boo ko judduloo bu dee bañ da ngay xam ne fas bi day bañ. Mm-hmm. mbër mi boo ko judduloo bu amul fit da ngay xam ne mbër mi amul fit. te baal dama ko juddulu xam naa ko bu baax baal kese mu wér. non du ne bëree leneen lu dul nii. mais da ngay gis ne Balla Gaye parce que bi làmb ji jeexee ñu ci bàyyi ne nañ Balla Gaye wérul. Balla Gaye dafa feebar et pourtant avant làmb ji mhm. nit ñu gisuñu woon loolu wala waxewu yoon noonu mhm. mais biñ ko daanee ci lañ ci la yooyu yëpp doo ko génn Balla bu tane woon Balla bu tanee moo mën ñii te moo ngi am yenn combat yoo xam te nekk na ci kanamam te yooyu ñoo gën a nekk danger ndax digganteem ak Eumeu seen revanche la mhm. digganteem ak Boy Niang euh, combat boo xam te mën naa ne sa revanche la ndax Boy Niang moo daanoon euh, Sa Thiès ah euh, digganteem ak Gris Bordeaux tamit revanche la encore naka naka nga gisee état de santé Balla Gaye bi néew wérul ak li ma jëm micro bi. loolu moo tax ma song affaire yi sax teel a wax parce que revanche yi ñëw si. moo tax ma mhm. wax. combat yëpp revanche la de. waaw parce la te lii mu jote waneegum ci revanche. te te te mhm. combat yi Balla Gaye jot a bëre. Mhm. revanche yi mu jot a bëre benn dong la ci gagné. mooy bi ma la waxoon kon. mooy Issa Pouye yëpp da koo perte. kon xam nga te mën naa jimaa ci ñetti revanche encore ci kanamam. Balla palmarès am bu ma ko doon wax da nga naa ma da koy woy moo tax sax ñu bëri naa ma làmbu mais man dama doon rang stade di sonn di doon supporter ba egsi bañ fal ma école porte parole ma nekk si école bi lu mat ñaata at ay vingt ans musuma génn sax si site mais wax daa jot parce que revanche yi mu jublu moo gën a danger yi si des kon boo waxee heure bii rek yàlla mun na def feebar boobu may déclarer dina faju parce que dina xoolaat affaire yi ñoom it ñi mu war a wàññi mu wàññi leen am na ñoo xamante ni ñoom ñoo war a am xelu sax ni xam ne mbër mi buñ ko toppee dañ koy yàqal. Mm-hmm. nañ dem aju si kaw. pour mu gën a mën a rendi parce que nit boo ko yéenee man mënoon naa nekk si équipe bi di buuxante di bëgg siiw mais damay xam ne mbër mi libre defal ma li ma bëgg moo gën ñuy fay buuxante mu yàqu. ku si mel ne ay ñoom ñaaxarañ loo ay ñeneen ñi ma si doon tudd waruma leen woon tudd sax mais sama xol moo laaj. Mm-hmm. da ngaa waaw kenn du gis naajo di ko jaawalee xaal. Mm-hmm. man du ma def noonu man su ma gisee xaal damay xam ne lii xaal la su ma gisee naajo ne lii naajo la buñ ko xaree doo rus tey bu ma waxul woon lu raayat nit ñi duñ apprécier. Balla na si bàyyi xel bu baax nit ñi doxewuñ seen bopp si ay naxa-naxa. Mhm. parce que moom nante la. nga ak du ko topp bu ko ngaa ko toppee du yàgg ak moom. Mhm. kon moom na jaamewaat sa la mu nekkoon bay daan ñor parce que ñun loolu lañ soxla mais revanche bi ñëwaat contre Eumeu Sène. Mhm. bu ko daanee ñaata yoon lay doon. trois fois kooku nan laay werantee ak moom. looy wax <laughs> ku la réel borom teyul waaye réel réel la ti borom a ko tey dëgg neexul. nee naa la mbiskit du dem si soos wax la. dama ko mm-hmm. bëggoon a wax yow du ma la xas. si biir vidéo bi. nee naa mm-hmm. biscuit du dem si soos. Mm-hmm. loolu wax la mooy duma la xas. mburu ñaar lay bañ. mooy baala du ma la saaga du la jaanni. Mm, muy asib. ak poson poson. xam nga loolu luy rey nit la. man baala su ma ko waxee lu teggi ne man kon maa ngi koy maa ngi koy dépassé. su ma waxee leneen luy kii maa ngi koy dépassé mais dama ko bëgg xamal na yor ji koy mburu mburu boo defee ton day dem. mayonnaise day dem. chocolat day dem. suukar day ndox sax day dem. poñse. te mburu moo gën a métti aw yoon. Mhm. mburu bala nga koo jëfandikoo day metti xanaa xamoo rangu mburu kenn du ko burle. mukk du xaalis du lenn rangu mburu koo fekk muy taxaw ñëwal dagg rang bi nga xool doo doo ko defeti rang bu ne dañ koy burle ba mu des rangu mburu kon Balla mën naa mën a xajal ku ne parce que buzz am tolle ne ni su waxoon si man ñetti fan ma am buzz mais yaakaar na su waxul si man du ma am buzz man wutuma buzz yàlla moo ma mën a may nii may wax dëgg gi wax ko. nga trouvé ma ñu nekk si di dóor moom bu bañee ñeneen nangu. mais diggante ma euh, Gris Bordeaux mhm. naka la ko war a mën a bëre pour am ci ndam parce que su ma nee pour am ci ndam xam naa ne supporter Balla Gaye nga te boo doon conseil Balla Gaye da koy conseillé ci anam bi nga xamante ne ci la mën a amee ndam. soo ko doon conseillé wala nga koy jàllale message naka la war a mën a bëre Gris Bordeaux ndax gis nañu diggante mën a Gris Bordeaux xeex bi bari na ci ba ba léegi jël amul mu war a bëre waat naka la war a mën a bëre Gris xamoo Gris bu Gris ni ma ko mujj a gis mhm. su entraîné waatul du bokkaat Gris Bordeaux waaw maa ñemee wax loolu man la am parce que Gris ni mu doon entraîné ay ñoom bi mu amee ay ñoom motloo ay ñoom mhm. Balla Gaye forme boo mu nekkoon ak mhm. forme bii mu nekk nii ma koy mujj a gis non bokkul nekkul ci dara non non non Gris commencé gul baala bu ñu si compétir bii bu compétiree. Mhm. parce que bu bëree revanche yooyu bu paree day gën a compétir giri parce que giri Balla rek lay xaar. Mhm. te Balla mhm. si Bombardier la jóge bu delloo si Eumeu Sène day gën a compétir. mun na am giri rek gañe ko. te giri dafa cogoon bu demee boo ko mbasee day pànje day ñàkk giri xam kan moo aay si moom Modou Lo musu koo laal yaa lay def génn mu daanu parce que li muy li muy signature mooy garaaw da koy teg pression Gris bu ñëwee day ne dama koy rajaxe mhm. bu ne yaa mu dóor mu génn mu mu këpp parce que bëri ndaxante la Balla tey jii bi ñu delee mi bu fekkoon ne ay bopp ko wër bu arbitre ne waatee pire Bombardier foo jaay mu bàyyi ko xel parce que ñu ko wër ay technicien lañ man foofu laa doon waxee bataille psychologique mais waxewuma comme nga gis Eumeu seen gis kee day am confiance mhm. bu gisee ale kee jaaykatu kii bi nu mu tuddee sax borom diwlin gu niin gi solo Aziz Ndiaye waaw merci. Aziz mais foofu sax di bëgg naa ñu tax taxaw fa tuuti. Mhm. ndax dégg naa ki di Balla Gaye mu ne. Mhm. Euh, Aziz Ndiaye moo ko dàq bëree. Aziz Ndiaye di takk ngemb moom xalaatugul takk ngemb. waaw naka dégg wax jooju gannaaw. waaw kay gannaaw ñu ci bari nee nañu Aziz Ndiaye dafa bokkoon ci ñu koy yàqal Balla mhm. Gaye génn ne Aziz bi muy takk ngemb. moom takk xalaatugul takk ngemb te Aziz Ndiaye ko dàq bëri. waaw kay xam nga loolu war naa àtte combat bi. parce que xoolal pourtant moom mu nangul ne Aziz Ndiaye ku borom ku mën a bëri la na indi ku xam làmb la ku xam mën na xam làmb parce que làmb hmm. maa ngi nii di ko wax. waaw gars yi di apprécier ne xam nga ko. Hmm. parce que yi mën nañ commencer si sa kanam di jàng bëre ba mokkal yow ngay seetaan mënoo mokkal loolu mënu ne. Hmm. te man damay seetaan contact man du ba làmb rek laay seetaan rek dem man chaque jour maa ngi contact man su ma amee semaine seetaanu ma contact damay waaw damay am problème il faut ma woo ñaari boo yu bëre def leen vidéo di cassette di def noonu ay tournoi xale sax dama koy tëgg. mais moom daa àtte boppam Aziz Ndiaye fu mu demee ba bëre te kenn yëgut na wax palmarès bi Aziz Ndiaye mbëreel kat waxal ñu mu daan man ku ma laaj Balla gay ñu mu daan ma wax ko ko te man moom laa faral moom moo faral Aziz Ndiaye bu ko neexee mu woy ko man baala laa faral tey bu suba mais bu dëgg jotee bu yoboo mu mare ma bu yoboo mu koj ma dama ko koy wax mooy kan nit la boo ko jeyee bu ëllëgee bu réccu jotee day réccu baala bu doon papaam mi ngi dund am na yu bëri yoo xam ne da koy raxas dañ waxante la fi ne xoolal ñeneen ñi siy wax sax mën naa tax baala du daan parce que man si tirbine bi laay toog. Mhm. li ma mën a naan si ban bi mbaam xamul la sa dex ba fas xamul la sa dex ba mais mbunaat xam na la sa dex ba moom miy naan ba sa ban bi. Mhm. dégg nga ma man damay teg si tirbine bi di dégg lu wax da ngay dégg waaye kii lu mu fiy wut waaye yow kii dañoo yeb loolu rek mën nañoo daan. Mhm. kon neemal na nga doon demee man fa laay waxee xasuma Aziz Ndiaye. xasuma Balla Gaye parce que dama leen respecté. mun ñu hmm. bokk géejawaay ma leen xas. Hmm. mais ñoom tamit nañ bàyyi xel ne man tamit ndaw laa buy dem. war a wax si làmb yor ay école yor ay booy di leen tàggat ñëw ma mer rek dugg si làmb déedéet. Hmm. man dama bokk si làmb parce que damaa yor ay xale di leen tette ñuy xool ci Balla Gaye wala ñuy xool ci ay Modou Lo wala ñuy xool si ay Eumeu Sène wala ñuy xool ci ay tafaatin parce que ñooñu ay mbër lañ. yow boo amul koy bëreel nooy bëree. boo daanoon bu dee ki nga faral rek ngay jox favori kon yow kan la ñuy bëri. dëgg yàlla ah. mais loolu la làmb moom boo waxee dëgg dañ lay classé ñu koy siiw xanaa xamoo sénégalais yëpp boo leen doon baxal si cin jërul ub. lu leer sénégalais yëpp boo leen doon baxal cin yëpp boo leen jëloon di leen baxal si cin jërul ub cin li ku nar a génn sa moroom lay xëcc. wallaay ndeysaan du deñ man làmb maa la wax loolu mais waaxum gëleem xaju si pantre. miisu mm-hmm. àdduna këru naxekaay la loo fi gis dafay jeex. dara duma tee ma wax sama raayat boo bëggee bëree da ngay liggéey lu mat sëkk boo summee koo ku la xool xam ne sa waay ndaanaan ngi. mais léegi su ma ah. jugee su ma ñëwee ci combat bi nga xamante ni ñii woon nañ du am ñii ne day am ba ci keroog ñu dégg ki nga xamante ni mooy suñu papa Gaston nee na mm-hmm. combat boobu dafay am kenn mënu koo teree am ndax moom la njëkk a signé ay Balla Gaye boo Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène mu diggante ballagay boo ñaa ndax Boy Niang keroog gis nañ ko bi mu duggee ci palaato bi wax waxi ko bëgg a bëgg Balla Gaye doo nga la wax te xam ne fi mu toll nii xelam dal na ci mu jàkkaarloog Balla Gaye naka nga gisee Balla Gaye Boy Niang xam nga combat ngi noonu Boy Niang Balla Gaye Boy Niang Boy Niang duggoon na kër Double Less daan fa Sa Thiès non yàgg na yéen yàgg yàgg na leen a sonal de waaw géejawaay moom non géejawaay basang la ko moom li may wax Modou Lo daa lal besang Pikine mais Boy Niang laloon na basang géejawaay contre bu Lac de la xaw a laale basa ngir jéem a waat beneen solution. Mhm. mu dem passé at mi mu duggaat géejawaay. Mhm. mais baala mooy ki daan dugg géejawaay mu génn la. Balla da daan nekk si ay combat tafaatin di daan si géejawaay bi mu paree dana tafaatin laa soxla. Mhm. bi mu jëlee tafaatin tafaatin da ko ne est ce di nga ko dékku yow. mu ko tay ma wala kan xeex. keroog bi arbitre ne pire daa génn saako yi. boobu Balla la wala du Balla. indil ma image boobu nga indi image bu Balla ak Gris Bordeaux ak kii ak Bombardier nga indi image bële ak image bi ba xam préparation yooyu bokk nañ mais préparation bii li mu indi si contre kii xaw ma fu mu entraîné mais loolu ñu ñun si ay supporters lañ. mbër nag bi ñoo ko yoroon. Mhm. buñ la ko joxee bu yooyee war nañoo wax nag bi daa yooy. Mhm. boo yafalul la ñu ne la merci boo yafalee ñu ne la sa waay jëf waay <laughs> mais nga wax dëgg ñu naan la ay booy bi Pikine la dëkk ku ñooñ ñu bëri dañuy saboote lamb man dinaa saboté lamb kuy saboté lamb day xaañe. wala muy def leneen keroog bi sama génnee booy fils de Langsaane. Mhm. bi ma ko génnee yóbbu ko stade ñu damm saisi bi ma ñëwee waa CNG dañ ñu woo réunion si laa book toog kooku day caaxaan si laam wala caaxaanul si laam. kooku caaxaanul si laam xam nga. Mhm. bi ma ñëwee ñu convoqué ñu xam ne ay xale lañ dañoo yàqale dama leen ne xooleen kii doomu mbër mhm. amuñu amul papa ñun rek ñoo ko mën a jàppale waa CNG. wax leen ma stade bi ñaata ñoo koy defar ma dem jëli engagement bi ñu ne ma ah booy stade bi li koy defar bëri na 3 millions bi ma defee supervenu xam naa ne man jéngu ko nañ ko jéngu gaay école bu ne am na soudeur. Mhm. mbër yi ay suudar a ngi si. entraîneur yi am na ay soudeur am na ay électricien am na ay lépp ñu jël pièces yooyu ñoom stade defar ko keroog bi ñu ko defee vidéo yóbbu ko Bantamba ñëpp a ko rafetlu. Mhm. pourtant ñun ñoo def loolu. maa ngi gis ay Cheikh Super Jamono. waaw waaw waaw Cheikh Super Jamono maa yoroon vidéo bi jour boobu di leen caméra. Mhm. kon ñun yàgg nañoo rampe di ñëw. mais defar làmb ñu tax a jóg. parce que nit ki buñ ko daanee da nga koy yëkkati loxoom. félicité mm. ko bu ñu demee ñibbi kenn du xeex. parce bu ñu gisee ñaar ña akaloon kuy xeex. kenn mais ñu gisee ñaar ñu di sànni loxo ñëpp xeex. mais ñëwul ma ci diggante Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang. naa ne sa mbër ngay rek mais. ñëwul Balla Gaye man man yow xanaa xamoo làmb moomatuma si. parce que maa ngi si tere bu ñu weetoon mën naa la wax farfee. Mm-hmm. mais léegi léegi amul far. parce que làmb ji dañ koy kosaar rek jox kenn ku ne àqam. gis nga boo bañee jàmbaari kële chaque jour boo werantee si làmb daanu. dëgg la yaa ngi dégg boo bañee jàmbaaru sa adversaire boo ko xoolut doo ko daan mbër da nga koy ñëw dugg si mbër mi jàkkaarloog moom benn nopp bi ndengeñ parfois nga jàkkaarloog mbër ñaari nopp yëpp ndengeñ. te benn bu si ne wax la. waaw mooy waaw parce que bi gën a ndengeñ foofu lay bëree. Hmm. waaw bi gën a tuuti ndengeñ fa lay noppaloo. dëgg te nga wax fa ëpp lu muy dugal. boobu loxo bi ngay liggéeyee mooy daar <laughs> loxo bi nga liggéeyul du daar daaraan. waaw bu gaa yi jaawalee pomme ak banaana bokkul. bii dafa nooy bee da dëgër. man du man ñaar yëpp maa leen gën a neex. ku ci baaxul ba nga jaawale pomme ak banaana ko defati bu tàng nit du ko lekk di wax. mu man damaa pataas bu tàng la boo ma dégloo foo jaar jaar beneen boor. mais mais Balla Gaye Boy Niang. Mhm. la ci mën a avantage pour daan Boy Niang. entraîner. def contact bu doy Balla Gaye mu wér xaju si Boy Niang barki yàlla gér gér mi la der piir la mais daa wàcc yoonam won ñu beneen yoon ñu muñal ko muñalaat ko kon wax ko jot na parce que Balla daanu rek ma wax de ñaata Balla ñaata Balla cinq défaites ma ngi ma juumul kon mënoon na maa wax bu yàgg. Mhm. mais nit bul gis séquence si kanamu nit ne bandi la Sénégal looloo fi ñu yàgg. mais bu fekkee ne duñ wax liy raayat ci làmb ji kañ la làmb ji jub CNG da ngay gis koo xam ne day daw responsable yow arbitre en tant que arbitre jëla sa responsable fu mu yem neex tëggum dënd ak semeñ neex benn naqari benn mais wax dëgg bu mu la teedee mm-hmm. mais defoo ko deux fois kooku lu ko war a def te pourtant bu doon mbër ko def ñu aj la man bi nga juumee lañ la corriger boo mm-hmm. juumut kenn du la corriger njaati gi am déet dëgg la boo déggoon ñu ne suspendre nañ ko beneen arbitre du ko defaat boo déggoon ñu ne dagg nañ ko si xaalisam beneen arbitre du ko defaat te arbitre ñu nag ñoom la. te kaw ni làmb ji demee bu Bombardier génnoon ñu teg ko daan. sama benn booy dafa bëri ji barki démb daanu si avertissement booy biri silin ma ma daalal ko si yoon sax nga xool image biñ ñëwee fekkewuma combat bi ñu ne ma biri silin taxawul chaque jour bu ñu léewtoo day léewtoo ba génn chaque jour bu ñu léewtoo mu léewtoo ba génn ba muy cinq ma ne ko lekk na avance booy mbër mu ndaw daanu daanu professionnel. Mm-hmm. daanu quatre vingt millions léegi ay avertise la loolu neex na quatre vingt millions ay avertise loolu tamit nañu yërëm dëgg neexul grand ñun du ñu ndekki fa la ñuy fem boo teewul tarang doo dugg Balla Gaye Bombardier billet cinq mille lu musta am mu ñëw indi bojo bojo yee seen baay ñëw na waaw waaw waaw waaw <laughs> waaw loolu dafa neex këng këng këng këng këng këng këng këng këng këng këng këng waay ah mu war a rendi rendiwul may wax mun a am ay dëkkoo géejawaay loolu méttiwul. ah neexul ci xool de. neexul ci xol da bi géejawaay te xoolal ba nga daree bëre ba léegi may dagg bii amoo dara loo ma félicité nga ne dëkkoo géejawaay. te yaa ngi may wax si biir wax sax na ma stade ka nga ndékkee te añuloo. waaye fa ngay ndékkee boo ko ndékkeewul doo dem bala ngay ay boo teel te jël place doo am place billet 5000 xoola ni mu feesee xool li ko yàlla jagleel kon ku la siy wax dëgg danga ko war a féliciter ne ko maa juum. Mm-hmm. man it ma mën a noppi tëj sama gémmiñ mais boo nee dëkkuma fi da nga maa tapas mais dama koy baal parce que bu doon benn bégal sax bégal na ma ko mais man waruma sori ko man. barke arxuraan laa lay waatal man bis bu ma yóbboo Balla Gaye taxaw si ginnaaw yàlla fay ma sama xol ñu ñibbi maa la wax loolu du si gàllaaju si dara de bëgg waaye noo ko yemale ku bëggul. Mm-hmm. mais xoolal yow dañ lay négliger sax am dara. kër gi boo respecté sa baay boo waxee ñëpp ree Mhm. boo respecté wul sa waajur boo waxee kenn du la déglu te man foofu respecté naa ko kon amuma lu may ragal baalo dama doon bégal di ma bégal ba juum bu juumee damaa war a ñëw wax lan la juumee baala juumul de ñi ko topp ñoo juum parce que foo daawul dem boo fa demee da ngaa war a jël risque xam ne tey jii de taxaw naa si cumikaayu jàmbur kii bu daanoo fu ma jëm. Mhm. mais est-ce que gars ngi bàyyi xel loolu man damay jël risque yooyu mu leer ma ne maa ngi nii di dem di dem si booy bawal tey mais booy bawal mii may nuyu tey si làmb ji bu daanoo fu ma jëm. parce que laa lamb daa fiir. lu si mhm. bokkul dañ ko siy génne. Mhm. ñoom ñu am risque dem di ñu won loolu. ay booy ay ay coppet yoo xamante ni xam nga tojuñu fenn ay musique lañ xam man damay dem si ay musique di si wax ku ma xam man may dem ba jaxaaw dëkk buur ku mën doo fen di fa seetaan defe voilà njëkk gise gisee Paul Maurice na leen bu ñëwee senegal toj ko Paul gis fa super étoile mii ak El Hadj xam nga El Hadj ma daan mboot mboot ya mhm. bañ koy indi jaww laa ko joxoon jaw mu école Balla Gaye moom mi ngi naa am a dëkkuma gi foofu mais bi ñuy réunion seen école bi laajal jaw ba xam man géejawaay laa dëkk wala dëkkuma géejawaay Balla bu gisee géeja jaw na laaj ba xam booy bi géejawaay la dëkk wala dëkkul géejawaay mm-hmm. li ma ñëw tribunam moom duma ko ñëwal li ma ko ñëwal moom Balla mm-hmm. billaahi du ma ko ñëwal euh, léegi su ma jógee ci point boobu damay ñëw ci làmb ñu waxtaan ci làmb gannaaw euh, ñu lay duppee làmbaloog yàgg nga seetaan làmb sànq yaa ma koy wax nga ne ma jamono yu bëtt baas. laay seetaan làmb ba léegi te ku xam jamono yu bëtt baas xam ne mbapat la. jamono yu ko du yoo sa bopp indi si si boo ko boo fa andee yàq làmb jamono yi biyee 300. léegi ñu gis làmb euh, làmb di dox làmb di dox làmb dox ku ne ñëw wuyu si làmb. Mm-hmm. ñu dem ba ci biir euh, yu ci bay bokk ci làmb ñu ci bay di yàq làmb ba ñu gis ci système boo xamante nii ñu ci bay yaakaar nañ ne luy doxal làmb la muy sistème pay ñu ci bay nga koy jël bu ñu tëggatee làmb léegi télé dootuñ ko wane dañ koy jaay par code nit ñi du ko seetaan kaw ñu gis ki nga xamante ne nii mooy suñu papa Gaston nee na pay-per-view day doxal làmb lig euh, lig ne pay-per-view doxalu làmb Ama Baldé ne pay ci li gën a rey làmb loolu ci la bokk naka nga gisee loolu PV loolu muy wax naan ay PVV day doxal làmb hmm. si poosam lay doxal waaye doxalul làmb ki tëgg làmb mun hmm. na see gañe mais kii seetaan làmb du si gañe ndax tey jii bu sa bu sa téléphone bi baaxul vide noo koy seetaanee. ñëpp amul téléphone bu mën a seetaan. ñëpp amul téléphone bu mën a seetaan. tey am na si ñoo xamante ni buñ naree jënd di code beeg di ko dugal ak yooyu incité boobu ak seen crédit di naaw dina leen jaral duñ ko jënd. Hmm. mais na wax à Sénégal dootoo ko seetaan am déet. bu la fekkee Sénégal muy sa bénéfice. Mhm. te mun na ko boo demee si diaspora bi boo dégul code foofu bi doo ko seetaan. Mhm. mais ñun ñoo dundal laam ba mu mën a defar loolu. kon na yërëm supporters yi parce que képp koo xamante ni mi ngi koy def du publicité bi day ñëw sponsor yi. Mhm. mais tey jii bu dee bee est-ce que sponsor yi na bari du bari. parce que risque la. tey jii da nga daan seetaan ba si yàgg ñu dawal publicité dawal ko lu. yàgg ñëpp toog ñëpp mais foo jaar xaar ko. parce que li ngay seetaan moo si ne. Mm-hmm. waaw loolu mooy tax sponsor yi ñëw mais boo demee pervers bi kuy ñëw ginaar day gis kay taxani gis kay bojj di topp kay taxani du ko def mm-hmm. Mm-hmm. man xanaa xamoo mënuma seetaanee làmb kër ga télé dem seetaani ko moo may gën a seetaan télé parce que man damay seetaan tuus damay seetaan dox mbër xool organe xool dërsoo yi xool laaf yi xool tànk yi kon kooku bu ma ko bëggee xool si télé du ma ko mën keneen ki tele rek la ko mën a seetaane kooku dana ko arrangé mais kii dem làmb moom xàmmewul buñ bojj ak buñ boxam. léegi ñu doon gis euh, noonu laa ko mën a waxee waaye ñu doon gis euh, buñ bu bu bu làmb amee ñu koy jàllale ci télé yi da ngay gis sponsor yi dañuy ñëw. Mhm. mais léegi publicité yi am. Mhm. ngay toog di seetaan télé ba ci yaa gis publicité ñoo làmb diw am na. mais léegi su fekkee système PPV bi. Euh, publicité yi dootul daw ci télé bi des fois da ngay gis làmb ju am ba dimanche. Mhm. budul amateur yi ñeneen ñi ñoo xam ne sax làmb am na da naan diw may ba ñu ne ah man yëguma ko woon. waaw parce que tey jii bu dee publicité bi sax ngoon dinañ dawal publicité bi génn mbëri wax Sador ma mayaale ko Aziz. Mhm. nga baal ma de. non amul solo waaw. wax Zador di wax lii baala Gaye diw ak diw bu paree waa tegaat Zador tegaat yeneen yi bu yàggee doo xamul woon diwlin bi sax di nga ko jéem a lijjanti. xam mhm. fan la diwlin bi ne. mais bu fekkee ne loolu amut looy looy publicité doo publicité du dox làmb nañ ko teg fi mu nekkoon ba egsi fii mais bis bu ñu ko jëlee fi mu nekkoon di fi indi affaire professionnelle ñun ñëppay sonn làmb ji xoolal léegi set ndënd la ñuy wax set ndënd set ndënd lu mën. mun la ah. làmb li ko doon neexal nañ ko si bàyyi bu yàggee ñaari ndënd la ñuy wax ñaari ndënd kooku làmb joolaa du neex. lambi joolaa la kundun kundunut kundunut kundunut kundunut kundunut loolu boo ko dégloo bu yàggee da ngay ñibbi wala ngay nelaw lambu këng këng këng këng këng canjaj canjaj cool bi wax ndeer bi wax tungu ne wi waaw waaw ah cib ah lamb buñ ko yërëm quoi nañ ko wax mu neex parce que tey jii ñun ñoo ko moom buñ ko yàqee day yàqu rek mais lamb da ngay dégg galañ xoolal baabu ngom ma wax la tey jii nga xamante ne yàgg naa si lamb ji mhm. baabu ngom avant muy siiw pa du njaay roos la fi fekk paa bi ay loxo la doon tëgg Mm-hmm. mu xam ne kii du nekku ñun du neex a bëreel. Mm-hmm. mais gis nga bi mu jëlee élan ba indi yëkkini bi mu ñëwee daa tegal pas duñ daa doon 32 ndeer naan ko nii moom tamit mu neex si man trop. mooy mm-hmm. mën xam ne paa yi ñu ngi bëri si biir tëgg. mais tey jii xoolal Baba Ngom ni mu siiwee kan moo ko gën a siiw si tëggkat yi. xool tëggu si ta booy boobu. jiili moo fi njëkk indi cung. jiili tërë ma njamban kenn nga kën kun kun tekkin kunda kun kun ko tekkin kunda kun kun ma ne Ibba ku def lii. ñu ne ma booy de waaw waaw <laughs> loolu dafa neex war ñëw xool ku dàq tëgg ñu jox ko médaille mhm. ki dàq tuus ñu jox ko dara parce que am na ñoo xamante ne tuus leen and ci làmb mais liñ gaa yi dagg CNG nañ koy teg fee tournoi mbër mi si dàq fair play ñu jox ko si dara bonus mu am trophée am teg ko néegam yaa ngi wax làmb de ah yaa ngi wax làmb de de bëri naa si làmb ba toll nii xoolal moo ma may trophée bi musuma xaas musuma def dara ñoom ñëpp dinañ reyante loolu ballon d'or lu ko waral tëggkat bi daa tëgg sax mën nañ koy mën nañ koy compal jox dara parce que ay millions la ñuy tàgg grand mën nañ si yëkkati benn cinq cent mille ni ki dàqal tëgg si ren moo moom cinq cent mille dinañ tëgg si normal tëgg ko mu neex tëgg ko mu demee laa mu mën a neex mais xoola dañuy dagg affaire yi doo xam fu mu jëm arbitre bi bu tardé kenn du ko dagg bu defee heureur mhm. kenn du ko dagg Sitor li mu def du erreur mhm. kuy bind record di si jot war nañ laa aj wax dëgg yàlla laa mu dox boo lëggee du def erreur Mhm. soo yóbbu sa mbër yow entraîneur bi ñu ko ne eh, sa fii amatul maye bëree lu leer mu xam ne lu leer lay war a bëri moo waral boo yëpp a yaru. léegi damay ñëw ci dernier point bi euh, mu dox ci diggante Modou Lo ak mu nekk combat boo xamante ni nii taxaw def face to wala jàkkaarloo présenté wu sax mhm. xaw na ci diggante ñaari bëri nga gisee boobu combat. loolu neexal la rek xaw a tëggi si ñoom la rek mais suñ bëggee day am. président moo gën a metti la bu bëggee jaal day jaal. Ama Baldé nit la Modou Lo nit la. te Balla Gaye Balla Gaye Modou Lo. tey maa ngi nii ñëw fii. Mhm. boo leen ko woon fii tey jii kenn yëgut ñëpp dinañ ko seeta mhm. am déet. dëgg la parce que ñoom ñaar ñëpp waxaale nañ ba jiboo kenn xamul ñaata lañ waxaale de. Mhm. mënoon nañoo gisee ñoom ñaar ñi toog nii jàkkaarloo journaliste yi wër la ñun buñ paree seeta du neex comme que bëggoo ñu jox ñu bëgg. yéen bëggu leen ngeen gis ko de jaxran ñu wal leen ko tele mu neex commencé mais dañoo bëgg mu gën a riis moo tax bu ñëwee ba si biir di ko dagg di ko dagg di ko dagg ba nga xam ne da koy yàkkamti togg ko mu ñor kooku tamit li liggéeyu na ko laala te bul fàtte ne dafay gëj mais ndaanaan a ngi noonu ku jara ñaanal a ngi noonu tey daana ma wax naa ma jën yi géej gi nañ ko def attention buñ si deful attention bu ëllëgee dinañ bëgg jën mu tëñu ba mu koy wax xam kañ la l'an 2002 moom mën na see bàyyi xel te dama ko doon seetaan télé te dem nañ ba jëmi jamono pour moole am jën rek problème la mhm. ma cey ndaanaa man damay soxla ay wax yoo xamante ni dafa am solo mhm. man du ma wax ak bojo bojo yi nii di wax ci ginnaaw de li jëntuwuma leen kan moo nekk si raay bi di wàcc kenn mbër du geesu mhm. Balla Gaye fa mu la amee problème muy ba mu njëkkee ne day jëli Bombardier yi première jël ba lan la Bombardier def ba mu koy jëli bu amoon staff bu baax dëgg ba mu déggal dina ko jëli ku jël ndaare loo siy jël te jël pee Tyson ba mu neex na ma xale yi moytu daanuwut. Yékini ba mu ne kenn mënu si man dara daanuwut. Mhm. Balla ba mu ne dama koy seetale la de. lamb bi daaw laay jël rek indi si ju am xam-xam de li xew suba yàlla rek moo ko xam. mais ñëwul ma ci ñëwul ma ci ci Modou Lo Ama Baldé. oh kooku ngeen teg seen wàll foo jaar cing cing yi bari. mu Ama mu tuus. Modou tuus. boo àggul foofu ku ko Costa juum. mbaadu ah ku ko ñem na wax. du salbe ñeneen. loolu il faut arbitre ñu tuus ba pare nga doog a xam kan mooy daan Balla Gaye bii ku la ne woon dañ koy daan da nga koy weddi. Mm-hmm. mais ba bombu tuusee gars yi tuus ku ne lagg. ah ku yàgg làmb xam ne ku la mën waaye man boobu laa gis bomb xam ne ay kii bu gasee tànk kenn du ko daan ba sawaay tànk yi mën na ko si fini. Balla dafa waroon jàng rapidité dugg si garde bi tooñ ko ñaari tooñ daw génn tribune bee koy yuuxu mu fàq buy fàq day ñëw ak laawam yi nga def demi flexion tibb si feebar bi bëri si buru la de. am na fu mu lay àgg docteur du la faj maa la wax lii man làmb bëre si buru la am na fu mu lay àgg docteur du la faj loolu paa naan ponkal xaju si yeel. Mhm. man ma naan si buru la am na fu mu lay àgg dee rek. moo moo la ciy génne moo la ciy génne. mais Ama Baldé abi sifflé doon def mu def ko tibb suuf dox ci sa kaw. waaw bu ko defee ci kaw Modou Lo noo ko naa. mooy intérêt mooy intérêt boo boo calculé ak si suuf lay xool di dóor si kaw maa yóbbu les mu def ko ko. doo ko mu daanu. xool si suuf les defe ne day caaxaan mu wë bi mu yuuxoo bi mu jugee bi mu ko fëggee épercule daa sa waay daa wàcc loolu te du defu ko benn yoon moo kayra nu mu def. si mhm. suuf la xool dugal force fara mu jàpp. kon kenn du ñëw di calculer moom amaana tibb suuf juut juuti. waaw waaw latéral dam yee ñaar laa si soxla ba ñett mu song ko lu mu am jël. mais bis bu taxawee ne day calculer moom benn benn ak moom la dal Balla Gaye koy dal jee du ku ñuy benn benneel parce que dafa diis. da ngay mhm. ñëw indi lu gaaw di ñam di génn. di ñam di génn boo ko tooñee ñaari tooñ mu maamu Eumeu seen nu mu def daa fatt gauche lii droite bi mu demee ba xam ne droite bi mënut a ñàkk da koo jël bàyyi ko mu ñëw mu rës bu sëggee du sigi ponkal la du gaaw a jug. jug bi day fu mu moo giri ba na la giri da koo tooñ daw génn. moog Balla Gaye numéro 1. da koo tooñ daw jël tànk ba dëj ko. moog Eumeu Sène. noonu la fay daa jël ku bàyyi ko mu ñëw mu rës mu mu war ko. Balla Gaye ñëw ne day benn benn ak moom fan la. si ñi ko daan ngay xool bu ko bañ parce que mbër mi da koy liir doo ko bëree moom entraîneur yi yu match yi dañuy jikki ji ba si yàgg soxla bi ñuy def trois attaquants la ñuy yóbbu si kaw am na wala amul. Mm-hmm. pour bëgg bi mais suñ bëggul bii bëgg défendre benn attaquant la ñuy sànni def 4-4-2 sëlëx benn. devant sax ñu def cinq défenseurs boo yoree ponkal mu toll nii Bombardier da ngay indi lu baax teg ko lambu kër la waaye du lambu baala. léegi euh, avantage Modou Lo ci Ama Baldé lan la war a doon. mooy diis gan. ma Modou Lo waaw taxaw xaar ko mais ni ma gis mu jéem a oyof bu ko jéemee oyof day sonn parce que Ama na doole de te wàññi na Ama ma nga gisoon biceps yi ngand ak léegi est que bokk na. te dafa am benn wax bu wax bu Ama bale di wax chaque chaque instant. Mhm. bëri woon nañu. Mhm. mu daan ma jill bu gaaw. Mhm. bi may doog a dugg ci làmb. waaye jël boobu moo ma def làmb moo ma daan jël bu gaaw jël bu rëy. chaque jour Ama Baldé day fàttali jël boobu. bombar kii Modou Lo ku hmm. munta daan amut. Ama na bàyyi xel ne ba léegi Modou Lo mën na kaa daan. Hmm. Eumeu Sène bi muy ñëw si Modou Lo moo gën Modou Lo palmarès téeméeri junni yoon. daa daan Balla Gaye daan la de daan Gris Bordeaux. Hmm. Modou deg mu des si mu ne da koy seetali te Modou Lo boobu Balla Gaye ko daan. mu nekk si ay jooy yu métti dem si Baye Ma Ndione jël fa benn këcëg këcëg ñëw taxaw mu nekk si jafe-jafe yu métti bi mu amee Eumeu Sène da kaa daan. jour boobu la ëmb si la Modou Lo di génn di bëre fas bi boo fàttali ko te buntu këram ñu koy génne mu nekk si fas bi di def nii def naa mm-hmm. ah ba jour boobay combat bi mais gis nga bi mu ñëwee dañ kaa daan Modou ku mu mënta daan amul bi mu duggee si poids lourd yi ñu bëri dañ ne woon du sori ma na mm-hmm. leen bañ a sori du ngeen laaj fu mu jugee ba ñëw avant ngeen di wax dem yàlla moo ko am mais di ngeen di mm-hmm. xool fi mu jógee ba ñëw walisam ku ko gën a riis walis amul fenn moom Modou kenn rek bu ko daanoon toj la am muy Balla Balla Gaye kenn rek moom it bu ko daanoon toj làmb muy ëmb seen muy ëmb. dëgg neexul. mënta ëmb nopp man la làmb da ngay laajte wala dangay ngay leerlu. kontaan naa ci yow ban lan nga lan nga doon xaar ci ma laaj la ko te jotuma la ko laaj. ci làmb ci biir waxtaan bi. ci ci làmb. ci làmb. Mhm. sama école. ndax ah saxaar lu mu fees fees am fu xott mm. gerte xaj. Mhm. sama école. maa nga foofu. ñu jàpp ma comme seen grand frère. muy mbër mhm. yëpp di marre di gabaar di ñëpp booy bi si gën a tuuti mosuma am ak moom xuloo luñ jàpp bu ma leen nee bàyyil ñu bàyyi te saa yu ma leen indee new si doole trop mais saa yu ma waxee ñoom ñu dégg est ce que yaa ngi fàttaliku Marley ak Xaadim Saar. Mhm. bi Ama Baldé di andi Xaadim Saar. bi mu dooree Marley Marley am problème tëdd foofu. Mhm. damaa ñëw si nopp bi na ko boo amoon car boo woppoon ba am 45 jours génn yaa amoon kii. loolu nga ko dee. billaay walaay booy bi yël waxal làmb dañ koy dépanner. Marley ak Naaru Sokaas ñaata yoon laa daar Naaru Sokaas. ñaar yoon xamu ñett yoon ñett saa yu daanoo ñëw ba mu waxee ma ne ko nii. dama delluwaat waaw. mbër da koy yar mbër boo mënul wax mu dégg mënul daan Marley na ko réel ñëpp ne woon du ko daan. Mhm. ma ne ko mbër kii si ndigli ngay laxasu boo ko bëggee daan. parce que bëri si buru la am na fu mu lay àgg dee rek. Mhm. kii dangay ngay aj sa garde jege ko parce que moom njool la yow ndaama nga. bu droite bi jógee da ngay juyoo ak moom boo ko takkee si ndigg ngay bëree ak moom xoolal bi ma langee si ndigg li. Gabbar Singh dafa bàyyi wala bàyyiwul. gars yi lekkatul ceeb bu nooy. Ah, ce yi ñoo bëgg ceeb bu nooy xooñ xooñ ji moom waxatuñ si dara. ba ñu Gabbar palmarès am ku ko gën palmarès daa am ku daan Gabbar. Malick ñaa ku ko daan benn defet boo koy ah, wax si mbëri mbëri yi ñu sànni dafa bëri. parce que mbër yi am xaalis ak yu bës la ñuy wër te làmb da ngay wër kuy wër si néeg bu lëndëm bi ak ku ko wéttali boo leen boolee rek combat neex xam nga lu tax Gaston di gagné day dem indi booy bu nekk état dem indi booy sëy waaw <laughs> nekk état andi booy sëy nga xam ne fàtte woon nañ ko dem indi sos dem indi isapouy mu nekk si talent mhm. combat yi di dox làmb yi noonu la parce que gis nga booy bi mais mais tanoor bu jubel ak gabaar sin làmb du ko daax waaye tanoor bu jubel ak gabaar sin waaye Gabaar Sine Forza combat la. Tano Tano daan Gabaar Sine de. dégg naa Tano moo daan Gabaar ba mu ko fekk jee Diourbel. combat bi dañ ko joxoon beneen mbër mbër bi bëreewu ko Gabaar jël ko ci cinq jours dem bëre. tonnerre moo mës a daan Gabaar daanaan la de lu ñu nëbb lu ne moo koy dindi. Papa Thiam fan la toll. Papa Thiam si si si ñaanal ko mu ñëwaat. ci la toll mais nekkoon na si yoon boo xamante ni pose la mais ale boo gis am na retour. Mhm. booy bu yaroo ngi noonu. drapeau bu mës a daan ma nga sama kër. drapeau Modou Mbaye Jamso. Mhm, Jamso maa ko jël. man ay trophée laa def ci làmb doog a ñëw. nekkuma ñu dekk ma micro rek may wax de déedéet Omar Mouma maa ko yoroon sama koñ la doon déparé Omar Mouma Modou ña nga mhm. bëree woon Alsaan Jigo. te xanaa loolu boobu Modou Lo ñëwagul si làmb. Mhm. kon xanaa xam naa làmb bu bëri. bu ma ko xamul miin naa ko. dégg bu doon kaas la bu ma si naanul séen naa ko man. xoolal ba ma nekkee si làmb ba léegi musuma xaañ nit musuma wax mbër lu ko naqari musuma dem si mbër ji ko liggéey te musuma jay mbër. te mbër yaa ngi may dégg de. Mhm. Modou Lo ba ma koy xam moom Njóogu Saw ñoo bokkoon benn araab bu muy jàng Njóogu. moom boo ko waxee moom Modou boo ko waxee Njóogu Saw xam na ko jamono yooyu dama doon ñëw parcelle di seet si Njóogu Saw di gis booy bi bi ma demee ba ma gis ko muy bëree mbapat sama maay dana tak ni booy bi ma doon gis muy raak ko ñoom mi nii kii ku ësa ngi yàlla di def muy ñëw di ñëw may indi géejaway Modou moo njëkk a lal basan géejaway daan Alioune Seye daan boo yooyu ba mu daanee Alioune Seye la gars yi commencé di bàyyi xel Modou Lo mais ndaanaan la boo waxul ndaanaanu gars yi doo nit. Hmm. parce que mbër yi boo nekkul ndaanaan si ginnaaw ngay ne. mais ku ko bañ bañ ko am jom bañ ko am fula bi muy ñëw ñëpp ne woon du egsi te moo yor roi des arènes. gis ngeen mbokk yi bi muy ñëw ñëpp ne woon di as ni nga koy waxee rek li duufandoo ci nag wi xajul ci cin wi. Mhm. li duuf ci nag wi xajandoowu ci cin wi. Mhm. Euh, di la bàyyi nga tàggatoo sant ñi ngay sant wala boo gërëm ñi ngay gërëm. wala boo nuyu ñu ngay nuyu. ñu tàggatoo ba beneen. waaw maa ngi gërëm monsieur le ministre. Mhm. Amadou xot jàmbaar a ngi noonu ndaanaan. Mhm. parce que wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara du politique quoi man làmb laa. Mhm. mais dafa jot ma wax si am quoi. parce que gis nga nit ngay defar nit ay formation ay yu baax ay pâtissier ay ordinateur comme yu ngeen koy defee noonu. Mhm. mu koy def si ay koñ wi di maire yi di am problème mu yëkkati ceeb jox leen même bu dee nax sax neex na. parce que nit boo boo gërëmul nit doo gërëm yàlla quoi. nit dañoo tàmm nag sénégalais booy gërëm nit ñu ne da koy jonguru mais man defalu ma ko sax mais na ko ci nit ñi ma gis. ma leen ñaaxaat mook baara ñu xam ne réew mi ay booye fi ne xeex bi xuloo bi jaru ko neexum ngont xam fa ngay fanaanee ko gën man mhm. a waaxu xam yoon baa ko gën lii xew suba yàlla rek moo ko xam mhm. mais moom su ma sañoon tamit yàlla may ko sens ba li muy rêvé mu def ko foofu parce que yëmbal tarre na tarre goo xamante ni ku ko suqali moo fa ne mhm. te pourtant baara jàmbaara de mais junni la ñaari junnee ñëw ñaari junneeg junni lan moo dàq ñaari junni buñ nelaw Amadou Hott palmarès la am wala amul palmarès dafa am ay preuve mhm. jël ministre dem directeur banque mondial defar ko am si trophée ñëw ni daway defar koñam kooku dañ ko war a yaatal. Mhm. te dëkkoon si koñ bi bu ko neexoon du dëkk Sacré moo mhm. mook jabaram ku tëdd si milliard loolu dee ay maire mais bu defaroon Sacré Cœur ba mu neex te defarul yëmbal est-ce que dina safe. kon bu amee xelu ñëw yëmbal est que waruñu ko accueillir mais booy nekk fa di xeex ñii di dammu ñii di toj seen bët loolu ko fi jar. réew mi nañ yaru fii ku yaru mucc ku yaruwul bari gaalaat ñetti yar ñoo am dégg nga ma. ban ak yaru mbedd. Mhm. yaru buur yaru kër. foo jaar jël benn bu gën. yaru kër bee gën. yaru kër gën. acca yow dégg nga nekk ndaanaan de <laughs> xam nga lu tax yaru kër gën. Mm. yaru kër di nga xam heure añ xam heure timis xam heure tëdd. yaru mbedd da tooñ ko lu tooñu ñu dóor la. nga fekk xeexub jàmbur dugg ci dóor la mm-hmm. ku la gis sa kanam xam ne yow booy ci mbedd mi la yaroo de mm-hmm. yaru buur da lay tëj kër gi dund boo boo boo wérub doo génn kontaan naa ci yow nuyul nuyul waa garage bi yow gis nga ñoo bokkoon nuñ koy waxee ay ñoom taba boroom ah. uh-huh. borom ataaju taxaw ji ah uh-huh. ay ñoom Mour Gueye taalibe sëñ Fallou ak baax maam Couture mm-hmm. kooku sama gaan la xoolal damay ñëw rek comme nii mu gis sit bi kontaan dama lay solul Mhm. ak waa Europe ñëpp ñu apprécier si Leuz làmb lépp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen masawu di mhm. wax ñoom baala bu ma waxee lu ñaaw nañ ma baal. te mhm. xam ne sama bëgg rek la. mais bañuma leen. bay weq na doom ji mais bañu ko. man munu ma baala Abdou Aziz ñu tuddee ko Abdou Aziz man ñu tuddee ma Alaaji Malick may bañ Abdou Aziz. bu buñ jaxase quoi dañu boole përëm ak jaaro or ak përëm bokkul Aziz dafa juum ma it damaa juum rek. parce que bu ma nee Aziz warul conseiller si ay bëre dama yaakaaroon ne xamul bëre rek wa déggal yaa ma yaakaaroon ne bërewul tamit mu jox ki bëre mooy ëpp sens tuuti. Hmm. moom mu ñëw parce que bu fekkoon ne mos na takk ngeem lu ma koy waxal. sama xolay metti rek mais du ma mën a wax. Hmm. mais man mosuma ko gis mu takk ngeem. Balla nag nee na daa bëree waaye nee ko bu ñëwee dama wax kanak ak kan la daan moom Balla Gaye Aziz Ndiaye kan ak kan la daan. ñu joxante waat rendez ba beneen yoon. incha allah lal basang gi ah. beneen yoon la ñuy wax si lal basang bu mot loo bi. rendez-vous. kon nañ bàyyi ba a ngi ak yow. Mhm. du ma mus a bàyyi. nañ bàyyi ba mu Lo ak Ama Baldé def seen jàkkaarloo ñëw wax ci Lat Basse. ñu waxtaane ko. Mhm. waaw gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci Wassare Lamb ci jàmmaarloo di leen jox dig daje beneen yoon jaa ngeen jëf.